screen shot dugal ko ci seen journaux yooyu noonu wala ngeen dugal ko ci youtube lu ne ngeen wax ko xoolal jaaral jaaral lii jaaral lale sëriñ yi duggati jaaral dina dem safara jaaral dara jaaral lii jaaral lale man de ngeen ma may jàmm man ngeen ma may jàmm de samay ñaanu yaay rek ku yaakaar di mën nga ci dara la yaa ci yaa ci erreur that's what I had to say c'est tout ce que j'avais à dire Je commence commencé voir pour Sénégal là, 2400 je ma famille euh, si ma famille je suis à 16 ans pour gagné pour suivre mes rêve comprendre ma mes mes études comprendre à un moment donné je me concentré sur mes études euh, anymore parce que nous avons beaucoup plus que li ñu ne ici aux États-Unis euh, gouvernement bi dafa strict ci par rapport à loolu Madame Khalé, mineur moins de 18 ans le droit plus de plus de plus de 10 heures de temps par jour ou 12 heures de temps par je sais pas je pense que plus de 8 heures de temps mais nous avons plus de 8 heures de temps en plus de dañu plus de 8 heures de temps nous avons amuñu won ki amuñu euh amuñu won xaw ma daal lan la ko mën waxe amuñu won support dal par exemple tey jii su soxla suma amone examen bu mo wara def parce que en ligne la koy defé légui ba wara a liggéey aw droit laccé permission pour def sama examen il faut que ma eggali lu may def paré suma raté sama examen mois prochain la koy defaat ya ngi comprendre du coup ma redoubler ben classe mais quatrième la redoubler je pense le quatrième le troisième anyway Bima ma redoublé S'il a décidé me changer dem si dem si euh, programme anglais au lieu que mettre le programme français programme anglais. De euh, ma un programme anglais même si mon examen de tout s'est bien passé tout machin mais lolo période bima ma quitté là, ma décidé quitter vers 2020 j'avais 19 ans S'il a commencé ce programme anglais mais en attendant de 2018 à 2020 mënu ma def dara mënu def mais c'est pas la raison de me quitter la raison bi tax quitter, c'est parce que nit ku ñuul ki moom comme yéen rek comme sénégalais yi may xas naa ma xool ñuulaay ñuulaay ñuulaay parce que yéen a ngeen complexe ci nit ku ñuul nit moom boo ñuulee rek rafetoo boo si ngay c'est la même chose tubaab bi tu bi respecté wuñu nit ku ñuul la plupart waxuma ñëpp mais la plupart dañu raciste respecté wuñu nit ku ñuul man maa gënoon a ñuul ci groupe bi ñu ne xaaral ñu jël ko def ko def ko objet de décoration teg ko ci ginnaaw bu heure fecc jotee mu fecc bu heure way jotee mu way tuuti daal di demaat ci ginnaaw fecc loolu mënul woon continuer en plus suñu voyagé nii comme par exemple ñu voyagé laissez ñu dem Brésil wala ñu dem Japon wala ñu dem I don't know wherever yaa ngi Euh, bi ma demee Brésil j'étais malade j'étais pas bien bi ma nekkee sur scène si laa xëm xam nga xam nga xëm xëm <laughs> laa def ah. kenn dang <laughs> ah. there's like 2500 people in here and I'm speaking all up. by the way can I have a bite no of the meatball please thank you mm-hmm. um you should do more rattles I know I'm gonna do one just now but Hold on. You should try to, you can also, it's not gonna like, you're gonna have like, just, tr just trust me, I'll explain the details okay. later, but. Okay. Thank you. Mm -hmm. Do you want a competitive battle? So if you like battle me, and me. Oh my gosh. Also, okay. I'll show you 2,500 people out really easily. Phân lại em on chắc. Phân lại em on. Đừng. اوكي خمس <laughs> سفر الاول نص يون <laughs> نص يون اني واي ما خم يعني ديك بما خمي بريزيل منال دما ياو رك نيك اوبيتال خوما لو خاو انتر تان بما خمي اك بما نيك ايغي اوبيتال خوما لو خاو خوما كوما يوب خوما كوما جلسي I don't remember what happened, okay? Like, when I was in the hospital, the first thing I had to do sama fans ils étaient genre sama fans parce que euh, si show à so bi petit petits, si show si public bi sommes what the fuck docteur Bouillac anglais ak benen docteur bu anglais fa kenn portugais lay ki anglais ñu ñu xamal groupe ok wa groupe bi dem nañ Brésil lijjanti wuñ ma ñoom xamuñu lijjanti wuñ sax si lan laa nekk parce que bi ma yeewoo xam naa pendant plusieurs heures. parce que bi ma eggee hôpital dañ ma defaral perfusion defaral ma euh, jël je sais pas liñ ma wax loolu yëpp après laa ko xam bi ma yeewoo mais dañ ma defal perfusion defal ma test de sang defal ma genre yooyu noonu yëpp yaa ngi comprendre léegi nag. bi ma bi ma bi ma leen laajtee ma ne leen léegi ana sama waa groupe fu ñu ne ñu ne ma dem nañ ma leen dem nañ fa ñu ne ma dem nañ Japon continuer nañu seen tournée kenn yónnee wu ma si message amul benn si groupe bi. Euh. amul kenn si groupe bi ko xamante ne yónnee na ma message. koo xamante ne yónnee na ma message pour xool si lu ma nekk dara donc loolu bi mu amee ma envoyé message parce que xam nga ñun dañu amoon euh, dañu groupe bi ma xam ngeen bëgg xam si lu ma nekk parce que xam naa ni seen yoon nekkul si lu ma nekk mais au cas où ngeen bëgg xam si lu ma nekk maa ngi si jàmm yeewu naa maa ngi nii yeewu naa maa ngi hôpital nee nañ ma dem ngeen waaw donc voilà bon voyage bon tour bon bon tournée xaw bon tournée la ñuy wax xaw ma <laughs> euh, anyway après nag euh, après nag euh, je me rappelle facture hôpital bi sax maa ko fay xam ngeen ñaata laa fay si facture hôpital su ma leen ko waxoon si franc CFA doo ma gëm parce que <laughs> su ma leen waxoon ñaata laa fay si facture hôpital bi ma jógee si loolu doole ma gëm te loolu ñoom ñoo ko waroon gérer mais gérer wuñ ko te ba léegi loolu ba tey ba sànq fayaguñ ma loolu loolu <laughs> léegi léegi après bi ma ju bi ma bi ma bi hôpital hôpital ay une semaine une semaine parce que loolu la soxla woon pour ñu defaree ma perfusion defaree ma ay ay ay ki jox ma ma lekk jox ma ma naan parce que daaw ma lekk daaw ma nan, fecc ak way rek laa daan def ñun ñëpp <laughs> fecc ak way yaa dégg. dellu si wala quelques jours avant que ñom ñu dellu si bi ñu dellu ñu expliquer na ma ne ma non xam nga. Euh, yenen fans yi nekkoon ci Japon euh, ñoom dañoo jënd seeni ticket ba pare pour ñëw seetaan concert bi donc mënuñu woon annuler concert bi 14 membres yoo xamante ne ci 14 pays lañ jóge en plus ñi nga xamante ne ñoo ñu daan accompagner ci voyage ñuy def ils étaient presque 14 aussi amul benn nit boo xamante ne mënu na toog ak man pour protéger ma xool ci lan laa nekk fay sama facture et tout ça non kenn mënul woon toog kenn kenn kenn kenn mënul woon toog. liggéey sama bopp laa gëm li may sol nag xëy na neexul ñu bëri parce que Sénégal xamuñu loolu xamuñu ay crop top ak yu yu sew ak yu yu tàng yooyu merci si xaw mais il faut tamit ngeen comprendre que ni milieu bi ma nekk moo tax nit ku si nekk am nga sa sa sa kii sa uniforme. ku si nekk am nga sa uniforme docteur yaa ngi sol blouse um, pompier yi di sol seeni seeni um, uh, yi di sol seeni blouse yaa ngi dégg avocat yi di sol seeni blouse waykat nag day sol blouse am man nag sama blouse nekkuma waykatu Coran nekkuma woykatu uh, uh, uh, Sambay Mayaan woykatu pop la pop star donc pop star dafay nduroog pop star dafay sol yu gàtt pop star dafay def jumbax awut te loolu c'est ok li may sol nekkul ci sama biir xol bi yéenoo ma kenn lu ñaaw maa ngi liggéey sama liggéey tal sama bopp taluma keneen yéenoo ma kenn lu bon maa ngi toppatoo samay waajur ñu may ñaanal te loolu rekk moo am solo si man

instant bi maa me deux millions 900 mais ça me fait ni chaud ni froid parce que deux millions neuf suivent, may suivre ñu bëgg lañ dañ ma bëgg ci seen biir xol am na si nag ñoo xamante ba ñu may saaga wante dañ may suivre yaa comprendre su les ni may def neexu ngir a ranger bagage woo seen taxi quitté yomb na de ah mais su vous li may def neex su ni euh, yéen a ngi may suivre maa ngi leen di ñaan ngeen may ma tuuti patience parce que inshallah allah samay sama suma suma ma eggee fi ma bëgg a egg si milieu musique bi fii euh, États-Unis dinaa commencé entamer def samay samay collaboration ak ay artistes sénégalais ñëwaat Dakar peut-être def show wala dara I don't know but dama bëgg rek ngeen xam ne mosuma leen a fàtte li may làkkee olof nii si ngeen xam ne mosuma leen a fàtte en fait mosuma leen a fàtte mais sama xol moo yàgg bon si yéen na pas yéen ñëpp mais si ñi nga xamantene ne lolu voilà mais tay mom kontaan na si waxtaan biñu waxtaan parce que j'ai l'impression que gën nañ xamanté j'ai l'impression que gën nañ jegantoo euh, ou pas I don't know mais au moins xam ngeen lo xamante ne ni xamo leen ko won avant donc euh, voilà aduna amul solo <laughs> merci cher aduna amul amul solo mais man dama tànn yoon bu nga xamante ne yoonu yoonu kii la soxla lu ma jënd ma jënd ko yoonu toppatoo samay mbokk yoonu dara dara mais nekkuma si yoonu di xaste ka saaga ak ak ak ak jëw ak ak ak yàq doo nitu jàmbur doomu jàmbur di wax lu ñaaw parce que mooy loolu maa wax wax wax xamatuma sax li may wax tu es bien sûr xanaa li ma expliqué nii yëpp yow da nga kaa déggul wala da nga fi nekkul woon du ma commencé waat de la ma sonn wax dafa metti juste sénégalais moo bon rek c'est ça mais fait ah non loolu moom kenn weddiwu ko balaa may dee ñu ne pere la teranga xaw pays de la <laughs> pays de boobu teranga ëpp ngeen jàngal ma wax yu bees yi parce que man bi muy ay ëpp na ay fii toj ay waaw waaw genre yooyu rek doon dégg avant mais xam naa ni moom yooyu dépassé ngeen ko yéen ngi si yeneen balaa muy dégg nga naan kii mooy wuu bi la mooy wuu bi wax leen ma jàngal leen ma wax yu bees yi ndax ma xam ndax ma bokk si temps bi ndax man xaw ma luy wuu bës a bës ba avant que muy génn seen àdduna nous avons Ñom si ginnaw dañuy dem connexion déjà pour commencer satch connexion taxaw si une caméra di saga di wax parce que yeen amo len fitu def li ngeen xamantene nous ngeen bëgg amo fitu suivre seeni rêve amo que fitu def li nga xamantene bo len ko défé sen que nous avons kaw mais bu fekkee amoo leen fitu def loolu ngeen croiser les bras croiser les pieds jàpp si yàlla yéen bëgg a muur ngeen muuru yéen ñi bëgg a sol yiw ngeen sol lu yiw kenn terewu leen ko de mais topp doomu jàmbur dafa lii dafa lële saaga ndey saaga bàyyi wax lu ñaaw àdduna bi yépp sama fans yépp ñi nekk Dubaï ñi nekk Japon ñi nekk Brésil sama fans yépp si àdduna bi ku nekk di gis seen ñaam làmmiñ bu ñaaw ak seen xol bu bon si réseaux sociaux yi ndax traduction yi léegi ngeen yaakaar ne li ngeen def man ngeen koy def nono da ngeen di da ngeen di gën a da ngeen di gën a da ngeen di gën a mettil sama liggéey rek parce que man sama liggéey sama liggéey en tant que maam en tant que maam Diarra Silla jóge Sénégal Dakar en sama liggéey xam nga lan la oui je suis aux États-Unis oui li may sol bokkul ak li ngeen di sol mais c'est parce que fi ma nekk bokkul ak fi ngeen nekk yaa ngi comprendre man. ah ndax la. waaw Mia Guissé mu ngi dëbb Sénégal nga ne xamoo Mia Guissé. ah. mais man nekkuma Sénégal je suis États-Unis man je suis concentré. man maa ngi France te pourtant xam naa liy xew Sénégal da jaar. ah mais lolou dëgg la c'est vrai que mënoon naa mën naa gëna a mën naa gën a xel ci li xew Sénégal mais. liggéey bi dafa bëri fii li ma war a def son mission li ma war a def moo bëri. I don't have time. si si je comprends yeah I got you I got you girl don't you worry. voilà I got you that's okay en plus wax naa la gënoon ma anglais daaw ma Amérique nag mais dégg naa anglais. Ah. baax na loolu baax na. damay waxoon xaalis mel ni comme si dama soxla xaalis su ma soxla woon xaalis kay dëgg la bëtël yi neex na ma parce que mu sama fan si sénégalais yi mu ngi engagé. non mais. non maa ne dëgg la mais au minimum moo gën nga toog kese noonu di wax ñu lay xas. non ñi may xas li jëm tuuma leen de ñi may toog di waxal samay fan si waxal ñi may xas li jëm tuuma leen te xas yi moom du ñàkk. yow mi live ñàkk def batal dem live yow kase sénégalais yi lay xas yaa ngi ma ko doon wax sànq si début bi n'est-ce pas waaw dëgg la c'est vrai ñu kenn bàyyiwuñu kenn bu si président waaw loolu moom dëgg la non après après man comprendre naa li ngay wax de parce que man moom bu nekkoon ay xaste kese moom ba léegi ba nii quitté naa TikTok bu yàgg maanaam daal man lépp lu may def c'est parce que soit def ma neex ñu koy def bu fekkee ni batali affaire yu xaalis rek la

waaye dinaa fayu man rek xam ngeen ne man du perte